Rewmi dal leen ak jaamu mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen encore ginnaaw ba Macky Sall ak ay ñoñam génnee li di bracelet électronique ngir man di ko takkal yenn Sénégalais yi nga xam ne prison ba amaana fees na ci ñoom te booba jamono. lii di waa Pastef ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne moom moo porté boobu rek combat ñu di génne ay bracelet dalal démocratie brasserie dalal démocratie bi patriote yi dañ ko fi indil ngir lan kii Ousmane Sonko en 2024 mu dal di mëna am lu mu suqali ko waaye it wii ñu waa Pastef mun a am départ maanaam lu toll ci 1 milliard brasserie yi ñu ngi koy jaay benn 1000 francs maanaam daal dinañ ci am lu toll ci 1 million bracelet de la démocratie bi ñuy wax léegi buñ ci jaay lu tolloog 1 million dañuy am un milliard un milliard boobu ñu daal di koy mën a dugal ci lii nga xam ne mooy campagne deux di koy mën a dugal ci yeneen yu bëree bëri yoo xam ne dina mën a saafara jàngoro yi ñu ngi koy toppee deux di ko ko laaj ngir ko mu war koo fay ci di Mame kon daal bracelet de la démocratie yi nga xam ne moom la ñuy génne yooyee comp ca deux daal di koy jox Mame Mbaye sax. ci li nga xam ne moom mooy lii ñu mébét nii parce que yéene nag di ko jaay sénégalais yi ñu bari ña ngay xaar ak rafetlu pour daal ci am ndax jamono yi ñu toll ni sax ñu ngay dugal ay numéro téléphone ku ca bëgg nga contacter waaye jamono yi ñu bëree bëree bëri daal yàkkamti nañu daal di takk yooyu balance la de la démocratie yoo xam ne waa Pastef ñoom ñoo ko génnee ngir mën a soqale leader bii di Ousmane Sonko ñu bëree bëree bëri ñu ngay xaar pour jot ca donte ci ay jamono ay xale lañ doon gis ñu koy takk waaye jamono yi daal mag ñu bëree bëri ñu ngay jug di ko wër ak ñu ngay xaar. ñii di woote téléphone ngir ñi ci commandé ñii ci commandé sax dix bo vingt ngir ka mun ko mayaat seeni nit kenn ku daal soxla nga ci képp ku ànd ak Ousmane Sonko jamono yi yaa ngay fexe noo amee ci bracelet de la électronique yi nga xam ne moom la ñii di wa Pastef génne kon bok branché la de la démocratie mi ngok patriote yu bari bari jamono yi dal ñi ngi xaar ngir mën a jot ci yooyee la pour mën ko tak ngir mën a fësal seenu kóllëre ak Ousmane Sonko waye ngir mën duggal dugal seenu jàppale ngir leaderu Pastef bi 2024 dal ñu dal di koy mëna a dénk réew mi nga xamné depp sénégalais di nga mëna gis sa bop ci réewum Sénégal loolu ñu ko kon mi ngok gaay acha comme numéro yaa ngoog mun ngeen composé ngeen daal di jënd ci bracelet yi nga xam ne waa Pastef ñoom ñoo ko taxawal jaa ngeen jëf mbokk yi.